waaw suñu point de presse euh, li ko sabab mooy euh, ñun euh, collectif des écoles privées Yeumbeul Sud dañoo bokk ci ñi nga fa tabarakallah ci wàllu éducation dañ cee dox ay jéego yu ama ama am solo ba tax na mbir mi nga xam ne moo am di balaa boo xam ne suñu borom bi moo ko wàccee nga xam ne ñaan yàlla yàlla dàqal ñu ko ci teel waaye nag euh, xam nga euh, dañoo nekk ay responsable te vraiment gàddu lu diis lu metti loo xam ñu ngi ñu toogloo depuis le 4 ñu war a fay ay euh, location yore ay personnel ak yeneen yoo xam ne dañ koo gàddu mu jëm ci wàllu njàng mi waaw ñu bëggoon nag lii nga xam ne ah président daf ko tudd te gisuñu ci suñu bopp Euh, waxuñu ñi ngi dégg ñëpp ñu leen di tudd ba mu des école franco arabe ah ñu yaakaar ni nag ñun euh, beddi euh, ñu moom kooku ak ni ñuy participation bu am solo bi ñuy def ci wàllu njàngale comme nag doomi ci doomi réew doomi réew mi lañu kii maanaam ci réew mi la ñu bokk ah ñun nag ñu yëkkati suñuy kàddu wan ñi nga xam ne ñooy autorités yi ba ci président de la république nag ni ko ñi ngi fi nañu bàyyi xel bu baax ci lii nga xam ne moom lay def demuñu ñëwuñu te ñun masuñu ñoo dégg ñu wax benn yoon wala ñu kaas benn yoon